Sénégal euh, bi ñuy seetaan ne rëbës dafa am ben ben terme ben bat. ñu ngi koy woyé braqué mënu ma leen wax kaddu googu bat boobu fu mu jógee waaye waa rëbës ñu ngi may sétane ñu ngi may déglu muy agent pénitentiaire muy prisonnier dafa am ben bat bu ñuy braqué détenu yi di utiliser agent pénitentiaire yi di utiliser ma xamal leen nak lan moy braqué braqué moy man Guy Marius Sagna ma ngi chambre 36 buma defé naka sa dul noonu ñi ma bokkal kaso ñi ma dañ may naan hum, bu ko def sino boko defé ñu braqué la bo defé naka sa dul noonu agent pénitentiaire bi dalaan la bo li boko defé ma braqué la naa leen xamal nak lan moy braqué bobu braqué bobu moy jëlee la sa nek bi nga nek yobul ci benen nek bo xamné ne condition yi mo gëna metti métti braqué li tekki biir rëbës je suis la man secteur 5 chambre 36 je suis mu nekk secteur bo xamné mo am condition yu gëna a tane ñu jëlee ñu la secteur 1 mba secteur 2 mba secteur 3 léegi nak na leen xamal yan nekk la wa rebeus prisonnier dañ lay naan ay way tay 9 ak 10 de agent yi dañ lay nan li boko défé boko défaté gui Marie Sagna tay 9 ak 10 ngay fanan alors ministre de la justice nak am fit taxaw suñu kanam nan ñu wa chambre 9 dañ ko féliciter dañ ko tatchu xawma tax dengel wax ci manam rebeus bu dé rebeus yépp safara la mais l'enfer des enfers moy chambre 9 10 41 3 4 ministre de la justice bëgg ñu gëmlo né nous sommes safara ci biir rebeus ñi nek ci condition yu gëna metti ci biir rebeus ñom dama ma ko en disant cela le ministre de la justice a assassiné une deuxième fois nos deux compatriotes morts il y a une semaine parce que mercredi passé ci waxtu ji lañu que génn àddina yàlla na suuf woyof seen kaw donc il les a assassinés une deuxième fois Dans le Japon, l'état du Sénégal moo leen rey pour non assistance à personne en danger L'état du Sénégal du ndogal yàlla de état du Sénégal moo rey ñaar ñooñu ndax condition yu nek biir rëbës rëbës bu amone yenen condition duñu dé duñu déwé nonu. Duñu dé mercredi bobu duñu déwé nonu. mu assassiné len une deuxième fois en disant des contre-vérités en disant des choses qui sont loin de la réalité de Rebus. C'est ce que braqué. Nous devons nakarlu. Si nous nakarlu yam, ce que vous l'État du Sénégal peut faire dans le pays. Lyon du football, égale finale, 20 millions. lion Lyon du basket, égale finale, 10 millions. Détenu des Rebus, 2 millions. C'est ce que je c'est insulter les familles, c'est insulter la mémoire, en fait, de nos concitoyens morts. C'est insulter tous les détenus de Rebus. C'est inacceptable. C'est choquant. Lolu pour acheter le silence des familles. Lolu pour que familles baña le tribunal. mais la la responsabilité de l'État, elle est flagrante, elle est manifeste.